waa mbokk yi kon noo ngi dil siwaat ak yéen seen juróom benneelu tomb ci firi gént mu ne koo xam ne danga gént gis ku faatu mu di la jàmbat ay lupp yuy metti mooy ay pooj na la wóor na aji faatu jooji ñu ngi koy audit ñu ngi koy laaj ci dog dogan ak bokk ak ku ko sopp am ci moom ay yëg ba noppi te faalewu ko loolu lañ koy laaj mu ne koo xam ne da ngaa gént ku faatu dina la jàmbat ay yeel yuy metti kooku ñu ngi koy audité di ko laaj ak dundam la mujj da ci am lu bari loo def ko basaarde amul ci ngërëmul yàlla mu basaarde ko ci ay caaxaan loolu lañ koy laaj koo xam ne da ngaa gént ab néew woola nga wuyu waaye bi ngay wuyu gisoo néew bi waaye fi kàddu gi jëm nga topp ca topp kàddu gi te mënoo bañ a wàññeeku jooju jëmm kat ah faatu dina ko dikkal te boo muytul buy faatu sax wopp ju mel ni ja néew boobee woppan moom lay wopp faatu mbaa bu wopp tëb-tëb dee ñooy bokk ak ñooy nuroo nuñ jeexe loolu la mooy géntam googu koo xam ne nag danga gént topp ci ab néew néew ba dugg ci ak kër waaye kër gi xamoo fan la seetlu woo it foo génne jëmm jooju moom tamit balay yàgg faatu dina ko dikkal ndax loolu convocation la mu wujji aller sans ndax gisul fu wàññi ko koo xam ne nag dangaa gént maanaam ànd akum néew ngeen di dox ba néew bi ñëw këram mu dugg yow nga dugg ah ba néew bi ak ci këram dugg waaye yow nag dugguloo loolu day la muy firi moo di am na musiba mu la doon yoot waaye yàlla dogal nga mucc ca musiba yàlla doon yoot nag dee ca la waaye suñ boroom yàlla musal la nga génn ca loolo ba far daal incha allahu dinga nga fi yàggat koo xam ne da ngaa gis am néew boo xam ne xaman nga ko waaye amul benn action bu mu def da gént gis ko nii kese kese rek loolu mbektale ci yow mi gént gént gi waaye lañ ci gën a tàmm nag ci gis ku faatu mooy benn ci say waajur wala sa mbokk moo xam ne sa maam la wala jege ñaale loolu lañ ci gën a tàmm moo gën a taxaw foofu mu ne koo xam ne da gént gis sa waajur wu góor dikkal la ta fekk moom dafa faatu ak nu la la dikkalee ndegam anam ya rafet na kooku bu fekkante am nga aajo yow mi gént gént gi ju lool léegi mu faju ci wet goo xam ne doo ko fa fooge waaye bu fekkee ni la sa bàyyi dikke nag nekk na ay anam yoo xam ne dafa desee rafet bu boobaa nag gënul ci ki nga xam ne moo gént gént gi aywa mu nekk koo xam ne nag danga gént gis am néew boo xam ne xaman nga ko nga nuyu ko mu fay la mu laaj la nga wax ko jëmm jooja du faatu ci at moomu waaye ay mbiram dina jag lu xawana ami gàllankoor incha allahu léegi mu lijjantiku ci wet goo xam ko fa fooge koo xam ne danga gént borom domb ak tànk ak nu mën a doone mu faatu woon nga géntaat gis ko mu dellu si yoraat ay fonction ca na ko yore woon kooku mënta ñàkk lu bokk ca famille booba dina ci am kuñ takkal ndomb ak tànk ñu takkal ndomb ak kum bokkal aw tur wala ñu takkal ndomb ak tànk koo xamante moom moom mi faatu ñoo nuroo kenn xàmmeewu leen waaye nag la mën a xewit ba tey aji faatu joojee mu gént gis ko moom ay mbiram rafet na ay jeexitalam lépp rafet